أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم mbokk yi ñu ngi woon ak yéen ci qisasul anbiya ñu tolloon ci darsu qaabil ak haabil borom bi tabaraka wa taala mun koy nettali ci quraanul karim waxoon nañ leen qissa bi borom bi di nettali yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam istuwaaru qaabil ak haabil ginnaaw bu ñu waxee dars bi bi ñu mujjee def dars qisasul anbiya ci histoire qaabil ak haabil mooy ñaari doomu aadama yooyu nga xam ne borom bi tabaraka wa taala moo ñu nettali seen xabaar ba amee histoire bu dox seen diggante ñoom ñaar am lu seen baay sàkku ci ñoom ñu def ko pour jege yàlla tabaraka wa taala te mooy kenn ku nekk ci ñoom ñaar ca la ngay liggéey na nga ca jël lenn nga indi ñu seet histoire bi ana kan moo nekk ci dëgg lan la yàlla di àtte lan la yàlla di dogal ci xew-xew boobu ci xabaar boobu qaabil ak haabil aadama moo leen jur kan moo ci ku baax ki ah qaabil kan mooy ku baax ki ah qaabil kan moo may wax ku baax ki kan la ci ñoom ñaar ah qaabil la ak haabil kan mooy ku baax ki mi ngi mel ne haaruna ak qaaruuna ki daa baax ki bon qaabil ak haabil kan mooy ku baax bi kon yéen da ngeen nekk fii dañoo di ñëw di déglu xisasu ambiya rek kenn du ah haabil mooy ku baax qaabil mooy ku bon ki borom bi tabaraka wa taala ba amee histoire bu dox seen diggante ñoom ñaar pour yàlla àtte leen aadama ne leen dañuy indi ku nekk ci li ngay liggéey am na ci koo xam ne sàmmkat la woon mooy kan kan ma doon sàmm bi moo doon kan moo doon sàmm ci ñoom ñaar qaabil wala haabil ku doon sàmmkat bi ah haabil moo doon sàmm qaabil lu mu doon liggéey qaabil lu mu doon liggéey jigéen ñi am na ci koo xam ne ci ñoom baykat la woon mooy qaabil haabil dem indi kuy mu rëy daal di teg moom mu daal dem seet li gën a bon ci toolam li nga xam ne kenn soxlawu ko xar yi sax duñ ko lekk ak nag yi mu dem indi ko teg benn safara jóge kaw asmaan daal di jël xar bi yóbbu aadama ne kon haabil moo gañe moo nekk ci dëgg mu daal di takk seen sëy sëy moo leen boole woon borom bi tabaraka wa taala nettali ñu ko mu ne yàlla mu ne watlu alayhim naba ibnay aadama bilxaqi is qarraba qurbanan fa tuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal min al axar borom bi ne nañu jàng yow Muhammad jàngal ci jullit yi jàngalal jullit yi istuwaaru doomu aadama xabaaru doomu ñaari aadama yi aadama alayhi salaam mu am ñaari doom ñoom ñaar ba ñu jëlee mbir yooyu jege ko yàlla tabaraka wa taala yàlla nangul kenn ki nangulul keneen ki parce que nag ku nekk li nga yéene yàlla rek li nga am ci sa poche loolu ngay joxe moo tax chaque jour booy joxe booy génne yéeneel lu baax haabil la moo tax yàlla nangul ko dafa génne lu baax yéene lu baax daal di joxe yàlla nangu ko ke yéene mooy ah même gis nga fii dañ koy gis ñii saraxe léeg-léeg nga nekk ab taalibe nga dugg ci kër saara añ ñu jox la xooñ bi ñu ne demal ci cin ba nga xooñ cin bi jox waa kër gi lekk ñu xooñ bi bu ko saraxe léeg ñu jox la yaxu mu caat yu des yi te alxuraan dane lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun li ngeen bëgg du ngeen ko mën a am du ngeen mën a baax lu dul li ngeen bëgg ngeen gën a joxe li nga gën a bëgg moom ngay joxe tey da ngay gis kuy saraxe di saraxe bu mu lakk wala muy maye mu maye bu mu ràpp loo xam ne bëggatu ko fekk bu fekkee da ngay maye wala ngay saraxe li nga gën a bëgg ci sa yére moom nga war a joxe bu dee xaalis li nga gën a bëgg moom ngay joxe bu dee takkaay li nga gën a bëgg mais nit ñi tey yàlla nattu na leen seytaane fowe na leen ba nga xam ne bu ñuy joxe lu ñuy joxe lu ñu amatul soxla waaw léeg-léeg sax ab gan seet si la nga ni sa soxna damal ci sama yére yi nga xoolal ko mais na nga moytandiku bii ak bii ak bii ak bii ak bii lim yu bëree bëri da nga leen moytandiku waaw nga xam ne bu jëlee yooyu ya fay des ay yendukaay dégg la nga jël nag yendukaay maye ko nga defa ne yow di nga am tiyaaba doo am benn tiyaaba kooku qaabil loolu la def dafa dem ci toolam jël li fa gën a bon daal di indi ne da koy jox yàlla yàlla bañ koo jël yàlla mu ne ma nangul kenn ki ma bañ a nangul kenn ki ki ñu nangul moo nekk ci dëgg moo gañee ki ñu nangulul daal di ne ki ñu nangul qaala la aqtulannaka mu ne ko yow dinaa la rey dinaa la rey yow dinaa la rey la aqtulannaka ndeysaan xam nga ku baax ku baax soo ko menacé wala nga jéem koo wax lu bon nga saaga ko wala nga wax ko lu bon ku baax ki du fay am na sama benn papa boo xam ne sama dëkkandoo la woon dafa am dafa mës a julli ci benn jàkk timis mu sëlmal mu toog di def ay azkar ñu tëj ko ci jàkk ji bilaalu jàkk bi tëj ko ci jàkk ji dem yoonam timis la woon mu toog ci jàkk ji di def askar di naafila ba gee jot ñu ubbi jàkk ji fekk ko mu toog bi bi ñu jullee ba pare mu daal di dem ci bilaal bi rek bilaal bi génne paak dafa defoon day xeex ak moom quoi xàcc mu ne ko eggalil sa yéene eggalil sa yéene bul delloo paaka bi eggalil sa yéene bi daal bi ne ko nag bañ maa moytu rek bañ maa moytu après daal di génn dem yoonam mu daal di bàyyi ba affaire bi xaw a guddi mu mu génn këram dem kër bilaal bi mu ñëw nuyoo dugg toog mu ne bilaal bi waaw yow danga ma bëggoon rey daaw de yaa ngi ree de xaaral ko fekke woon de yow da nga maa bëggoon rey mu ne ko ilimaan moom ko sant mu ne ko waa léegi lu tax reyoo ma man daal aw ma sens woon ngaa eggali sa yéene rek man aljanna rek laay wut wallaay mu noon nga maa rey après mu génn dem xoolal yóbbu ko police waxu ko dara gis nga ku baax soo ko bëggee def yu bon du la topp wallaay du la topp mu ne ko la aqtulannaka dinaa la rey xoolal ku baax ki lu mu tont haabil qaala innama yataqabbalu allahu min almuttaqin mu ne ko xam nga lu tax yàlla nangul ma yàlla ñi ragal yàlla lay nangu seen jëf ñi ragal yàlla ku ragal yàlla soo jullee yàlla jël ko soo wooree yàlla jël ko soo saraxee yàlla jël ko loo def ci lu baax yàlla jël ko mais boo ragalul yàlla yàlla du la nangul da ngay sonn rek mais yàlla du ko jël dara lépp lay jàll fële parce que ragaloo yàlla innama yataqabbalu llah min al muttaqin ku ragal yàlla rek la yàlla di nangu jëfam ku ragalul yàlla da ngay sonn rek loo def lu mu bari bari bari lu mu sakkan lu mu rafet yàlla du ko jël moo tax ku yeba nga am taqwa ndeysaan yamu foofu moom ku baax ki muy haabil mu ne ko la in basatta ilayya yadaka li taqtulani saa yoo tàllalee sa loxo bis bu la yàlla nattoo seytaane poussé la ba nga tàllal sa loxo bi ci man ne danga may rey ma ana bi baasiti yadayya ilayka li aqtulak man day ñaanuma yàlla fu may tàllale loxo ci sama loxo ci yow pour rey la ñaanuma ko yàlla xam nga lii mooy lu baax mooy yow boo ma bëggee def lu bon man du ma fayu mais tey lan ngay dégg ci dëkk bi da ngay dof dof di nga xam ne maa la gën a naan kaani yow maa la gën a rakkaaju maa la gën a dof maa la gën a maa la fu mu jëm bu fekkee waa ji day dof dof lu nga dof dof lu mais foofu jàmm du fa am bu waa ji ñëwee kay ak dof dofloom yow da ngaa war a ànd ak dal ànd ak sang froid ba mu teey nga wax ak moom ba mu dal mais bu dof dofloo nga dof doflu luy xew foofu musiba rek loolu moo tas kër yi loolu moo tas liggéeykaay yi loolu moo tas jàkka yi loolu moo tas addina bi moo tas fépp nit ñi di dof doflu ay nit di leen topp ci seen ndof googu moo tax gis ngeen waa ji ba mu fekkee yonent yàlla muhammad alayhi salaatu salaam muy nelaw mu yëkkati jaas yi yaa di ko yee ne ko man yamna'uka minni ku lay musal yonent bi ne ko allah yàlla waa ji daal di tiit jaas yi wadd yonent bi ne ko man yamna'uka minni baal ma baal ma mu ne ko baal naa xoola bu ko ne woon kër gor jab gor bopp bi rek waa ji daal ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah waa ji daal tuub ma nit dafa war a jaay mbokkam jikko ju baax mais bul jaay nit jikko ju bon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne ku la def lu bon idfa alquran moo ñu ne idfa billati hiya ahsan del faye lu baax i hadis bi ñu ne lan sil man qataaka wa ahsin ila man asaa ilayk deel rafetal kuy def ci yow lu bon deel rafetal ci moom xoolal kii nee na ko yow dinaa la rey mu ne ko soo tàllalee sa loxo jëme ko ci man pour rey ma man de duma mus a ñaan yàlla tàllal sama loxo jëme ko ci yow pour rey la lu tax mu ne inni axaafu allah rabbal alamin ndax man damaa ragal yàlla gis nga de ku ragal yàlla doo def lu bon doo wax lu bon doo yéene nit lu bon doo sa loxo bi ah doo ci def jullit lu bon sa tànk yi doo ci dox jëm ci lu bon gis ngeen lan la fan la mujjee mu ne inni uridu an tabu abi ismi wa ismak fa takuna min ashabin nar maa ngi ñaan yàlla sama bakkaar yi ak sa bakkaar yi nga jël ko moo tax saa yoree nit ay bakkaaram jël nga ko nit ka noppalu ji na shahid na dugg na aljanna yow jahannama nga jëm direct man qatala mu'minan mutaammidan fa jazaa'uhu jahannam yàlla nee na ku rey jullit te yaa ko tey safar nga jëm yàlla waxaat ci alquran ah man ahyaaha fa ka'annama ahya an-nas ku ko dundal yaa ngi mel ne dundal nga ñëpp waaye ku rey bakkan fa ka'annama qatala an-nas jami'a mu ngi mel ne rey nga ñi ci àddina bi yëpp moo tax nit kenn waru ko rey nit kenn waru ko rey boroomam moo ko moom moo ci war a def lu ko neex amaa nit jël yat wala nga jël fetal wala nga jël mart wala nga jël sa xalima wala nga jël nangam ah daal di rey nit ah saw sa àdduna yàqu na sa àllaaxira yàqu na mu ne ko man de damaa bëgg nga jël samay bakkaar ak sa bakkaar nga bokk ci waa safara wa zalika loolu jazaa'u zalimin mooy fay tooñkat yi képp ku tooñkat kuy def lu bon wa zalika jazaa'u zalimin gis ngeen de safara yàlla nee na mooy fayu def kat lu bon wa zalika loolu te mooy safara jazaa'u zalimin képp kuy def lu bon rek criminel yi yàlla mu ne safara rek laa leen di fay aw ma ëllëg lu ma leen dencal yaqulu jalla wa ala buur bi nee na fa tawaat lahu nafsu qatla axiihi fa qatalahu fa asbaha min alxaasirin ndeysaan mu daal di am bëgg-bëgg am cofeel ah mu am njàmbaarte njàmbaarte shajjaathu ala qatli ah ala qatlihi ak njàmbaare daal di koy dugg ak rey mbokkam dugg ko seytaane taaralal ko ko mu daal dem daal koy rey fa qatalahu fa asbaha min alxaasirin mu rey ko nag bi mu ko reyee kenn musta rey nit ci àdduna iblis moo ko won nu mu koy reyee waxoon naa leen ko xista bi passé moo ko won nan la ñuy reyee nit boo gee rey nit noo koy reyee mu dem def loolu mu rey ko léegi nag mu da xamul encore bi mu reyee nit ba pare xamul nu mu koy def mu daal di koy yenu waxoon naa leen ko di wër ak moom xamul nu mu koy def deret ji di sotteeku ci kawam mu wër ko di wër ak moom fu ne mu dugg fa borom bi tabaraka wa taala mu ne fa baasa allahu guraban yabxasu fi l ardi li yuriyahu kayfa yuwaari sawata axi yàlla nee na ma yónni baaxoñ xam ngeen baaxoñ xam nga baaxoñ mu soo ko gis xam nga baaxoñ nuy mel day ñuul kukk am benn band bu weex ci baat bi yàlla yónni baaxoñ ñaari baaxoñ ñi ñëw fekk ko fi mu toog di noppalu baaxoñ yi taxaw ci xeer bu montagne bu kawe ñoom ñaar di cofante di xeex di xeex ba benn baaxoñ bi rey moroomam daal di koy bërën ba ci suuf si daal di wàqi ba mu xóot daal di koy suul rek mu ne yée loolu mooy wax jii di ñëw nit ci kanam qaala ya waylata أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي ndax man damay lot ay waay yaa waylata ay man ndax man damay lot ba duma mel ne baaxoñ bi suul mbokkam ba ma mën a suul sama mbokk noonu rek la daal di jëlee Haabil daal di gas ba mu xóot daal di koy dugal ci biir daal di koy suul waaye nag borom bi nee na fa asbaha min annadimin mu mujj mu mujj réccu ba mu ko reyee ba pare wante gis nga sey nit bu tollee ci jamono mer ci jamono tartar jamono boo xam ne dafa tàng du gis seytaane moo lay def loolu soo demee ci benn téere bu tudd silaahu yaqzan seytaane day wax foofu bu doomu aadama meree nu mu koy fowee nee na dama koy def comme bal bu doomu aadama meree dama koy def comme bal xam ngeen bal gis ngeen xale yi ni ñuy jëlee bal di ko fowee di tël di tulli di wiiri nii mbëkk fii seytaane noonu noonu laay def doomu aadama bu meree dama koy def comme bal comme bal nu mu oyofee ma koy fawee lu ma ko def loo mu def ko damay ëf xol bi xol bi fuur ba di xonq dënn bi tàng rek ma koy wax yu duural reel jamal lu ko ci gën a jege rek mu daal di koy def waaye rapidement soo defee loolu ba pare rek seytaane day daw génn rocceeku taxaw fële ne nga am problème nag nga réccu ci ay seconde yu ndaw nga réccu moo tax gis nga fa asbaha min annaadimin mu daal di réccu kon histoire qaabil ak haabil histoire la boo xam ne dinañ ci jëlee juróom benn mbir bu njëkk mooy mashruiyatu yoonal nañ altaqarrubu ila allahi taala bima yuxibu an yataqarraba bihi ilayhi taala bëgg na nit di jege-jegelu yàlla di def ay mbir pour jege yàlla lu tax ngay julli dama bëgg jege yàlla lu tax ngay woor dama bëgg jege yàlla lu tax ngay saraxe dama bëgg jege yàlla lu tax ngay naafila damay damaa bëgg jege yàlla lu tax ngay aji dama ngay def ay jaamu yàlla pour nga jege yàlla tabaraka wa taala loolu yoonal nañ ko masru dañ ko yoonal lu tax ndax haabil dafa jël kuyam mu rëy indi ko teg ko pour lan pour jege yàlla tabaraka wa taala ibrahim lu taxoon mu doon tabaski pour jege yàlla tabaraka wa taala kon yoonal nañ ci nit muy def ay ibadat pour jege yàlla ñaareel mooy azamu jarimatul xasadi rëyaayu kirimu iñaan rëyaayu kirimu iñaan iñaan kirim la moo tax yonente bi mooy tënduñu mu ne iyaakum wal xasad fa inna al xasada yaakulul xasanaat kama taakulu naara xataba waaye leen mooy tundikuloo iñaan de ndax iñaan day lekk jëf ju baax comme safara ni muy lekkee mat iñaan baaxul alxuraan yaa ngeen ci saar boo xam ne yéen ñi ñëpp mokkal ngeen ko muy suratul falaq jullit di muslu ci yàlla naan wa min sharri xaasidin isa xasada yàlla yàlla nu musal ci ayu ayu ku iñaan rawatina bu demee ba feeñal ko nag rawatina bu demee ba koy def wa min sharri xaasidin isa xasada iñaan baaxul lan mooy iñaan dafa am ñaari mbir yu nuroo te bokkuñu iñaan ak ñee du benn jullit day ñeemee du iñaan iñaan mooy kii am na daraam ngay wax sa xol yàlla na yàqu kii maa ko waaw ñu ñëw ne la yàqu na nga de nga nga wax ci sa xol alhamdulilah maa ko yéene diw tukki na nga ne yàlla na dee foofu bu mu ñëwaat diw ngi ut liggéey yàlla bu mu am loolu baaxu benn xale am balam nga ne yàlla na bënn benn xale am fowukaayam nga ne yàlla na yàqu wala nga yàqu ko sax waxuma la nga ne yàlla na yàqu mais nga bàyyi ba nit ñi tourné fii rek nga ne affaire bi karaj yàqu ko nit ñi nag toog ñu ne ko yaa ne man de xaw ma ko gis xaw ma ko man fekkuma ko woon sax ngay triste triste lu nag fekk kooku dafa jël yi bagage am denc ko ci valise am nag waaw yow nga ñëw damm ko boros bu muy bu muy bu muy bu muy bu muy bomboo nga ñëw damm ko wala nga dëgg paccal paccal pat bi wala nga jël saabu bi tëmbal ko fële ci ginnaaw étage bi wala nga fomp ci sarbet bu set bi loolu mooy iñaan iñaan baaxu am na ñuy def loolu fii waaw ñooy ñooy ñooñu di ko def nag yàlla mu ngi leen di gis su ngeen ko bàyyiwul iñaan baaxu lan mooy ñee ñee mooy nit am dara lu baax nga nga ni ah man de bëgg naa loolu eh waaye man de bëgg naa ko loolu mooy ñee mais jullit day ñee mais du iñaan iñaan mooy yàlla na yàqu yàlla na xotteeku yàlla na nëb yàlla na dajeeku yàlla na dee yàlla na toj loolu mooy iñaan loolu baaxul loolu danger la mbokk yi jullit du def loolu ci xolam yàlla nañ ci yàlla musal mu ne wa maa yatarattabu alayha min asaari sayyi'a gis nga nit su iñaanee rek ginnaaw iñaan gi day am lu ci juddu loolu moo tas kër yi da ngay gis ay jigéen yuy sëy wala ay nit mag ak rakk nekk wala diw ak diw wala benn waay ci koñ bi gis nit ñi iñaane ko taraanga bu ko yàlla defal borom bi wax na ko ci alquran ay yaxsaduna annaas ala ma aataahum min fadlihi ndax da ngeen di iñaane nit ñi xéewal yi leen yàlla defal xéewal yàlla moo koy defal yàlla bu la rombee defal kenn xéewal bul ko iñaane li ko yàlla may demal nga ñaan yàlla yàlla may la yàlla moo ko may demal nga ñaan yàlla yàlla may la mais nga koy iñaanee moo tax iñaan dafa am musiba yu ciy juddoo soo iñaanee rek dootoo nelaw guddi sa xol bi day tàkk guddeeg bëccëg dootoo am yaram soo ñuuloon da ngay mujj di xe soo xeesoon da ngay mujj di ñuul ndax sa xol bi loolu loolu la xale naan yow sa xol bi mooy bita gaz léegi su benn xale bu jigéen wax yow sa xol bi dina yàgg bi taa gaz de waaw loolu sa xol bi day tàkk ngay ngalan nga bëgg kii li mu am yëpp yàqu wala wala wala bu ko soo gisee sax kenn mu ñëw ne dama ko bëgg a tàkk nga yàqal ko loolu baaxul jullit bu mel noonu ñetteel mooy qubulul amali saaliha yàlla day nangu jëf yu baax yi gis ngeen qaabil ah haabil yàlla nangul na ko lu baaxam li mu doon def qubulul amal as-saliha kañ la ko yàlla di nangu nag bu fekkente ne yatawaqqafu ala al-ixlaas fiha lillahi taala bu fekkente ne yow mi koy def da ngaa sellal ngir yàlla xam nga dafa am ay charte yoo xam ne yooyu ñooy tax yàlla nangu jëf surutu qubulul amal ñaata la ah suratu qubulul amal ñaar ñaata la ñaata la suratu qubulul amal yéen ñi jàng laa koy laaj du ma ko laaj xale yu ndaw yi ñaata la ñaar surtout bul amal ñeent la ñeenti sart yi soo ko defee yàlla jël sa jaamu yàlla su ci benn manqué kenn du jël sa jëf surut xubul amal ñeent la bu njëkk mooy al iman gëmal yàlla yow miy jëf soo gëmul yàlla yàlla du ko nangu moo tax yéeféer yàlla du nangu seen jëf ku amul iman yàlla du jël sa dara ñaareel mooy ixlaas na sell yàlla rek tax ñett mooy nang ko royee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yonent bi defee woon nga defe ko noonu ñeent mooy na nga ko def ci waxtu wi mu war a amee heure bi léegi bu ñu toog bu ñu toogoon ba caaw ñu ne nañ julli suba waaye ñu daal di raa ñun ñëpp daal di lixaam julli suba ñaari raak sëlmal julli nañ julli nañ kay dañ ko suba lañ julli wax parce que waxtu jotagul gis nga gis nga ñeenti sart yi su matee yàlla nangu jëf gi su ci benn manqué yàlla du ko nangu iman ixlaas iqtidaau bin nabi nga roy yonente bi saa salaam ci jëf ji ni mu ko defee woon yonente bi ñaata ràkka la julli woon timis ñett soo nee man damaa bëgg a bëri la xaaral ma julli six ndax ma am tiyaaba nga ñëw daal di kàbbar julli sa six ràkk asalaamu aleykum pare nag julli nga de waaye julli woo timis parce que yonente bi defee ko woon noonu yonente bi ñaata ràkka la julli timis ñett kon ñett nga war a julli kon ñetteel bi ñuy jëlee ci njëriñ yi nga xam ne dinañ ko jëlee ci histoire haabil ak qaabil mooy yàlla mooy nangu jëf yi waaye bala mu koy nangu jëf yi dëppook sellal fa nga sellal ko nga def mbir mi ngir yàlla lu mu mun a doon na nekk ngir yàlla bu ci yàlla génnee jëf yi yàqu na mbokk yi ñeenteel mooy bayaanu awalu man sanna jarimata al qatli wa huwa qaabil ki njëkk sunnaal njëkk a yoonal ki njëkk a yoonal ci kaw suuf yoon wu ñuy jaar ba rey nit mooy qaabil qaabil moo njëkk a rey nit ci kaw suuf moo tax fii ba àddina bi di jeex ku rey nit rek qaabil am na ci tiya bàkkaar bi fii ba àddina bi di jeex ñii ñu mas a rey ci àddina bi yépp qaabil am na ci moo tax def gis ngeen gis ngeen moo tax sos bidaa moo gën a dangereux ci àdduna indi bidaa indi lu yonent bi indiwul woon léegi nag xoolal ñun fii suñu suñu kilifa diine yi yiñ fi bàyyi nit ñi di ko def yu bon même buñ ci jublu woon lu baax tey nit ñi ñoo def ko lu bon ay bàkkaar kese léegi moom moo leen di fekk yowmal qiyaamati moo tax ndeysaan ñu ne alaaji Malik dafa jékki-jékki mu ne su ma xamoon gàmm nii lay mel dootuma du ma du ma ko du ma ko du ma ko sos du ma ko créé su ma xamoon ne nii fii la ko nit ñi jëmee kon du ma ko woon sos fekk ñoom amaana ñu def lenn di ci yaakaar ci lu baax mais après ñii ñëw foo lañ ciy def di foo di dem ay màggal yóbbaale xale yi jigéen yi dem luwe ay kër ñu yóbbaale ay ñii dem màggal dem fële dem gàmmu ñii yóbbaale dem ziar ñii dugg fële dem conférence yóbbaale dem fële yóbbaale def ay bàkkaar rek fekk nag ñi ko def moo tax sos dara baaxul gis ngeen qaabil moo rey sos moo sos rey nit ba àddina bi di jeex képp ku rey nit qaabil am na ci bàkkaar bi ba àddina bi jeex nag keroog ba mu reyee ba àddina bi bu muy jeex ku rey rek ñu dindi ñu dindi kiloom tegal ko ne ne ko yow yaa moom lii walisa warada ma min nafsin tuqtal nafsan zulman illa kaana ala ibnu aadama al awal kafiilu mooy nasibu waaw nasibu zalik li annahu awalu man sanna al qatla moo tax rot na ñëw na ci hadis yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ne amul benn bakkan bu rey bakkan tooñ ko tooñ ko amul benn bakkan bu rey bakkan tooñ ko lu dul doomu aadama bu njëkk ba te mooy qaabil moom mi njëkk a rey nit am na ci wàll am na ci nasib mooy cër ndax moom mooy ki njëkk a yoonal rey nit ci kaw suuf kon mbokk yi nit kenn du ko rey nit kenn du ko rey gis ngeen tey ci kaw suuf waxuma la ci kaw suuf mais ci Sénégal xam ngeen ne ñu ngi ci jamono yoo xam ne ci la ñuy àtte assises yi man procès yi ma dégg lu yëpp ay nit yu rey nit la yi ma déglu Sénégal assises yi yi ma déglu Dakar déglu ko Kaolack déglu ko Tamba ak fan yëpp ay nit yu rey nit la jigéen ju am doom xoj ko rey ko wala nga dugal ko ci foos foos xam ngeen foos wala nga gas ba mu xóot wala nga dugal ko ci mbuus perméable étouffé ko ba mu dee wala waajoo xamante ne dafa rey jigéen violé ko rey ko wala koo xam ne da ngaa fekk kuy tëdd di nelaw nga taal këram wala koo xam ne da ngaa jël marto wala nga jël pistolet rey ko man ñooñu rek laa déglu ren am na ci benn waay boo xam ne dafa dem di bëgg njaaloog benn jigéen jigéen ji bañ mu rey ko mu rey ko ba pare di dof doflu ñu dem tëj ko juróomi at bàyyi ko avocat yi lay ne dafa dof ñu bàyyi ko biñ koy jugé ji kilote la sol ak tiset ñëw di dof doflu nit ñi di reetaan après ñu bàyyi ko ñu ngi koo bàyyi mu dem ñibbi ñu ne wérul muy dof dof lu ñu ne xool leen ko kii xam ngeen ne wérul kii xam ngeen ne Sénégal da ngay rey nit ñu tëj la juróomi at bàyyi la nga génn jëlal la avocat léegi nag avocat yooyu yowmal xiyaam nañu pare de nañ sol seen robb de buñ taxawee kanamu yàlla ñu laay yi avocat yooyu juge yooyu di àtte loolu nañu pare ndax danañ taxaw ci kanam yàlla yàlla bépp àtte bu ñu àtte woon yàlla dina ko àtte waa daan ne alaysa allahu bi ahkamil hakimin yépp danañ ko àtte waat ci kanam yàlla nga rey nit jël say avocat ah ñu naan légitime de défense nangam nangam pitititita dugg fi génn fi nga dem rey nit dem tëdd sa kër di nelaw dafa ne rëcc nga des na yaa ngi ak yàlla ëllëg yowmal qiyaamati waaw assises yi ma déglu yépp ay nit yu ñu rey la waaw dañuy ñuy rey amuñu benn tiitukaay waaw dañuy rey nu mu leen neexee rey nit léegi ak rey weñeeyam mbokk yi juróomeel li ñuy jële ci histoire qaabil ak haabil mooy mashruiyat yoonal nañ ad dafnu wa bayaanu zamanihi yoonal nañ ku dee ñu suul ko ad dafnu suul ku dee dañ laa war a suul moo tax benn bis ndeysaan dafa am benn borom xam-xam bu mag bu ñu doon defal waxtaan ci nëb nëb xam ngeen nëb nëb xam leen nëb lu nëb lu dee ba nëb mu ñuy defal ban njëriñ laa ku dégg thème bi rek ñu ne kii moo xam nëb waaye ñun ñi ñëwoon keroog dañ ko jële kenn xamu ko mbokk yi imaginer wu noonu bu fekkoon ne nëpp amul ñi dee depuis aadama ba léegi kon ñun kenn duñu suul bu ndee parce que dootuñu am fu ñu suul nit ñi mais xoolal yàlla moo def secret ku dee foog nga décomposé wu foog nga nëpp buñ la suulee sa yaram tasaaroo seey daal di jeex imaginer noonu bu fekkoon ne ku dee rek kon dañuy tegale nit ñi ay conteneur di di ngay dugg ci kër doo am foo toog ndax ñu dee yaa ngi ko ñu fi ñu teg kon kenn du dox kon kenn du tabax sax na ngeen yaakaar nit rek kay dee xoolal xar yi xoolal bëy yi xool kon fan lañ fan la doomu aadama di dox kon kaw suuf day blindé kenn dootul mën a bouger waaye xoolal pour suuf si sax yàlla setal ko yàlla dafay yóon bind ay gunóor yoo xam ne gunóor yoo xam ne gis nga ci àll yi dëkk yi nga xam ne amuñu duus su nit demee àll ba foofu yàlla day yónni ay gunóor gunóor yi ñëw tibb affaire yi daal di koy bërëng daal di koy jël sànni ji ko gas moom ko suul ko pour ñoo ñoo ñooy bale suuf si gunóor yi setal suuf sax yàlla da leen a bind est ce que seet ngeen loolu ci àll bi laa wax am na dëkk yoo xam ne amuñu duus nit ñi dañuy dem àll ba ci ci ci ci mbedd mi ci bayaal yi dañuy dem àll ba mais xoolal yàlla moo defar ay gunóor ñu tuddee leen lan mbërëngaan su ñëwee loolu nit ñi di dem àll ba la ñuy tibb bërëm ko bërëm ko bërëm ko jaxase ko suuf ba kenn dootul xam nu mel yaa di gas ba mu xóol suul ko dem noonu rek la mooy seen liggéey gis nga yàlla pour setal pour setal suuf si yàlla kenn mënu koo fay kenn mënu koo gërëm kenn mënu koo jaamu moo tax alxuraan bi ñuy wax ne wa ma qadarullaha xaqa qadrihi màggalu leen yàlla ni ngeen ko war a màggale yàlla nit ñi dañuy jéem rek léeg-léeg nga gis benn waaye boo xam ne dafay jàpp ne moom egg na fekk tos lu toll ne kawar sax egg dafa ko yàlla mu ne wa ma qadarullaha xaqa qadrihi yàlla màggalu leen ko nu ngeen ko war a màggalee yàlla lépp lu mu def ci àddina bi lu ñuy jëriñ la même yi ñuy lor sax yàlla prépareel nañu lu ñu ko dindil mbokk yi yoonal nañ suul nit lépp lu dee ñu suul ko waaye wa bayaani zamanihi ñu leeral jamono juñ koy suul moo tax gis ngeen su nit deewee dañ koy denc daal di bind ay tàgge yónnee ay télégramme woote ci téléphone yi diw faatu na bisu sàngam wala waxtu sàngam wala heure sàngam lañ koy suul ku dee rek noonu la ku dee rek ñu daal di yéene ci jàkka yi ci rajo yi ci téléphone yi ah message yi commencé ñu daal ne bisu sàngam lañ lay suul heure sàngam lañ lay suul place sàngam lañ lay suulee loolu yoonal nañ ko juróom-benneel mooy xayru ibnu aadam almaqtulu zulman wa charruhuma alqaatilu zulman ñaari doomu aadama yi ki gën a baax mooy ki ñu tooñ ki ñu rey ki ci gën a bon mooy ki tooñ ba pare rey ñaari bàkkaar la boole dafa tooñ ba pare rey kële ñaari tiyaama la am dañ koo tooñ rey ko kooku ñaari bàkkaar la am xaru gis nga ñaari bàkkaar la def rey nit xaru te xam ngeen xaru lu ci yonent bi wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ku xaru yowmal xiyam li nga xaroo lañ lay jox rek loolu ngay alage sa bopp biir biir safara bu doon pistolet la nga tiire sa bopp yowmal xiyam arme boobu lañ lay jox rek ngay tiire rek bu doon loo naan la dañ lay tegal rek noo xaroo rek loolu lañ lay tegal yowmal xiyam rawatina nag nga rey nit bakkan dafa foor mbokk yi loolu mooy luñ doon jëlee ci histoire qaabil ak xaabil ginnaaw loolu nag ba mu ko reyee ba pare dafa daw moom qaabil haraba mu daw fu bi mu dawee fu mu dem mu daal di jël soxna si nga xam ne moo indi woon problème bi seexam bi mu daw mu sori baayam mu dem dëkk ji ci xur yi la dëkk mu sori papaam aadama aadama xamatul fu mu nekk mu sori ko lool daw aadama moom ndeysaan mu ngi doon dëkk dëkk ci kaw montagne yi la dëkkoon moom ak njabootam moom mu daal di daw dugg ci xur yi ci lëndëm ji dugg foofu moo moo soxnaam ndeysaan mu daal di dund foofu dund goo xam ne dund njaay àll papam moo ko doon jàppale ci diineem moo ko daan waar moo ko daan yedd moo ko daan jubal léegi amatul googu moom dong ak soxnaam ñu nekk fa ñu am ay doom léegi nag imagine leen ñu ngi fa xamatuñu diine parce que sori na baayam xamatul diine xamatul lu muy dund ci lan lay dund kon moom soxnaam ci jaahiliya doom yooyu di ci judd ci lan la ñuy jull jaahiliya ndeysaan ginnaaw loolu aadama ñëw na moom fekk catastrophe bi am na ba pare mu nekk mooy yàlla bu njëkk bu am ginnaaw ba ko qaabil defee ginnaaw loolu aadama dund na juróom-ñeent fukki at ak juróom benn moom aadama loolu la dund juróom-ñeent fukki at ak juróom benn fukk ah 96 ans la Adama jud dund ndeysaan yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na bi yàlla bindee Adama alayhi salaam lamma xalaqa allahu Adam masaha zahra yàlla bi bindee Adama dafa raay digg ginnaaw gi fa saqata min zahrihi kullu nafsin huwa xaaliquha lépp bépp doomu aadama bu yàlla nar a bind daa di wadd génn ci aadama daa di wadd ci suuf ba yowmal qiyaamati nag ñépp a wadd yàlla tabaraka wa taala mu ne aadama ñii ñooy sa njaboot ñii ñoom ñooy sa njaboot ñii ñooy say doom haula zurriyatak ñii ñooy sa njaboot ci biir ñooñu fa raa rajulan aadama daal di gis benn waay fa ajabahu ndeysaan aadama gis ci benn ci njaboot ci doomam yooyu mu gis ci benn waay bu rafet bu leer ndeysaan aadama mu ne "Eh, sama borom kii kan la mu ne ko sa doom yi la bokk aadama daal di kontaan ci kooku daal ne kii may naa ko ñeent fukki at ci sama dund yàlla ñaata at laay dund yàlla ne ko ati sàngam ngay dund aadama mu ne yàlla wàññil naa ci kii ñeent fukki at sama doom bi keroog ba malaaka yi dikkalee aadama di ko rey aadama dafa siburu mu woo doomam yi mu ne dem leen ngeen utal ma firwi aljanna doom yi daal di dugg ci àll bi ñu dajeeg malaaka yi ñoom doom yi xamuñu ne malaaka yi lañ dajeel malaaka yi daal di leen laaj ne leen ana seen baay ne sunu papa dafa feebar fu ngeen jëm moom moo ñu yónni lu ngeen di uti dañ koy utal firwi aljanna malaaka yi ne leen kaay leen ñu dem malaaka yi lan lañ yore siwo parfum witeen xobu si déem cuuraay ndox perkaal loolu luñ koy doyee ah loolu luñ koy doyee malaaka yi loolu lañ yore waaye ñoom xamuñ ci dara ñu daal di ànd ak malaaka yi ba yegg si bi ñu jegee kër gi rek xawaa daal leen di gis bi leen xawaa gisee mu daal di daw songu aadama daal di koy kott aadama daal di koy yuuxu ne ko xalli bayni wa bayna malaikati rabbi awa sori ma de bu ma indil problème ci xelam ci lan la dem ah déedéet xelam ci lan la dem mais ba mu nekkee ah kan moo ko indiloon problème bañ dàq ko ah moo tax mu ne ko sori ma eh sori ma ne demal ne taxawal ne bul taxaw sama digganteeg samay malaaka boroom taxawal fële parce que xam na léegi xel bi dellu si na parce que xam na ne xawaa moo ko indiloon problème day bañ li ko daloon dalaat ko ndeysaan mu ne malaaka yi waaye bu ngeen jëm malaaka yi ne yow lañ jël si mu ne leen wuy man deewa bu ma léegi de des naa ñeent fukki at ñu ne ko xanaa dafa fàtte mu ne laa laa fàtte ñu ne ko yow yaa waxoon ne sa at may nga ci sa doom boobu ñeen fukki at xam ngeen doom boobu kan la daawud daawud la may ñeen fukki at ñu ne ko yaa yaa waxoon nañ may nga daawud a ñeen fukki at mu ne nangu naa ko ñu ne ko mukk ndeysaan moo tax mu ne fa jahada fa jahada zurriyatahu wa nasiya fa nasiya zurriyatahu aadama fàtt dëgg féttéerlu njabootam féttéerlu aadama fàtte njabootam fàtte wa laqad ahinna ila aadama min qablu fa nasiya gis ngeen ndeysaan malaaka yi daal di jël ru aadama ñoom ñoo ko sang ñoo ko sang ñoo ko jullee ñoo ko suul foofu la aadama génnee àdduna ñu ñaan buur yàlla tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq ci dars aadama alayhi salaam ak ay ñaari doomam habil ak qabil dars bii di ñëw insha allah yaakaar naa ne ñu ngi war a jël beneen yonant bu ci tegu insha allah salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh
Thank you.